le 8 janvier incha allah Yann production ak Gaston production ñu ngi jox rendez-vous gars ci stade Mbao Wally Ballago Seck ak waram dal e eh, Mbao maa ngi ñëw de ah su ma ñëwee Mbao ñëppay wàcc wàcc si incha allah donc préparez-vous Yann production avec Gaston production Wally Ballago Seck ñu ngi jox rendez-vous le janvier incha allah te stade bu Mbao ay boy ay boy. asalaamaaleykum ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. waaw ah, di leen wax ni bonne heureuse année ci année bu bees bi jóge di ñaan deux mille vingt deux yàlla na gën mille vingt 2021 di ñaan mbas mi tamit yàlla jële ko fi di ñaan ñi nga xamante ni ñoo fi jógee yàlla na leen yàlla xare àjjana donc te yéexe ñu donc euh, juste dafa am loo xamante ni moo nu fi dajale donc euh, moo taxoon ñu ñëw muy un événement événement boobu nag donc euh, man en personne ma jël tele bi ne leen ni ñu ñëw ci ki nga xamante ni mooy di monsieur Baye Mor Fall donc euh, di responsable politique aussi ñu dëkk maax moom parce que lii yaakaar naa moom rek laa ko ci defal te di ngeen gis vidéo bi moom rek laa ko ci defal parce que dama bëgg a jàppale ko ànd ak moom ci lu dul sax li ñu organiser mais ñoo bokk dëkk parce que man guy ga laa yoro falaa dëkk yow mi ëmb di toog fii témoin la moom it seen kër faaleen laa fooye ay rakam ñoo doon ànd donc euh, maax ñoom ñoo doon nekk donc li nga xamante ni moo ñu fi indi mooy ñu dooleel ko man en personne pour ñu waa tënge ci xam ko mais c'est pas lettre parrainage bi rek parrainage bi loolu à part la mais pour nit ñi xam ko Rufisque TV yi mën ko teg gars yi mën ko xam mu gën a yaatu ñu mën ko jàppale ñu xam ni kii dafa am ay ambition dafa am lu mu bëgg donc moo tax ma ni télé bi ni ngeen ñëw poser ko ay question mu wax ngeen mën ko dugal aussi après ñu dugal ko ci groupe bi nit ñi tasaare ko ñu xam kan mooy Baye Mor Fall ak lan la bëggal Tëngéej parce que ambition yi mu am pour Tëngéej nekk na ambition yoo xamante ni ñëpp ñu ngi koy dégg ba démb ki démb rek ci jumaay murit gi waaw donc te ñun ay taalibe lañ ku bëgg sëñ bi rek bëgg nañ la waaw donc loolu moo taxoon ñu ñëw fii pour jàllale message donc maa leen di wax ni loolu kese la woon pour jox monsieur Baye Mor Fall Moussa ngeen ñëw. Eh, di wane ne rek eh, jox ngeen ma cër bi nga xamante ne nii peut-être mu ma fay leen ko du yomb mais nag beneen côté bi damay wax ne tamit lu war la parce que tamit doomu aadama moom bu dee na bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg nag yu bari yoo xam ne peut-être énergie bi muy de lu nekk suñu njëriñ ñun mais suñu njëriñ ñun ñëpp la donc ma jàpp ne tamit. Euh, li am na solo trop mais ñoo bokk tamit lu ñuy xeex mooy euh, tëngéej euh, ci loxo yi mu nekk nii ak façon bi muy doxee mu changé donc loolu am kenn ku ne am nga ci sa mooy li ngay def mooy li keneen di def ak keneen ak keneen donc lu am solo la waaw euh, Rufisque moom dafa nekk dëkk boo xamante ne nii jàpp nañ ne dëkk la boo xamante ne nii ñun fi lañ juddoo donc yaroo fi màggee fi donc pour ñun jàpp na ni waruñu koo indil dara loo xam ne la luñ fi war a def la donc fi nga indi mooy loo xam ne foo xamante ne dëkkoo fa mais bu dee lépp muy ngi say tànk donc nga juddoo fa yaroo fi màggee ci donc loo fa def rek dafa fekk nga war ko fa def donc ñun di jàpp mooy li des sunu àddina d'abord ci loola nekkoon mooy euh, dañu gëm ne doomu aadama moom sa dund yëpp di ci ëpp foofu nga wara jariñ sa bopp jariñ doomu aadama yi donc bu loolu amee tamit li nga def rek mooy dox ci li nit ñi tax nit ñi seen dund ñoŋ loolu nag dafa yaatu donc ñuy jàpp ne euh, lépp lu ñuy liggéey ak lépp lu ñuy def rek pour doomu aadama yi la donc loolu tamit weesuwul cadre de vie te loolu mooy rôle lu maire donc moo tax ñu gën a soxla lu ñuy yax toujours rek répétition la mooy ñu soxlawuñu maire parce que dañ bëgg turu maire parce que yàlla dogal na ci suñu yëg-yëg am na lu ëpp loolu muy turu maire beneen mooy tamit bu dee alal ji fa nekk te ñu bari di ko xëccoo yàlla dogal na ne du question alal du ñu am mais dañu am ak doylu te doylu dafa am solo ci doomu aadama euh, beneen mooy tamit ñu yar ñu tamit ci lekk li nga moom muy ñett yoo xamante ne ni peut-être bokkul nit nag mën na am lu dul jeex te tey tey soxla lu mu moomul nit tamit mën na am lu dul jeex te du doylu donc lu am solo mooy xam na ne euh, li nga liggéeyal sa bopp di ko ko ñaq di ko bokk nit ñi donc bu li ñëpp bokkee peut-être yow di nga ci am maandu loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla tënk ñu ci ci côté boobu ñu jàpp ne tamit li ñëpp bokk la ñu war ko defar ci dispensaire yi war ko defar ci tali yi war ko defar ci làmp yi war ko defar ci jeunesse bi nga xamante ne ni amatuñ benn espoir lépp ñu war ko tasaare ci ñoom nga xam ne kenn ku nekk da nga gis sa bopp ak tamit artistes yeeg lépp maanaam affaire bi ni ñu waxee ñu ne parfois compétence bi budget bi bariwul yooyu ay wax la rek saa yi man bu dee dépense ñetti dërëm laa war a am saa yi jox ma sama ñetti dërëm rek waaye dafa tuuti ba pare nga lekk ko ça veut dire que yow bu ma dee yaa ma rey donc ba tax nañu ñu jàpp ne comme que dafa tuuti ñoom seen xam-xam foofu la yem dañu jàpp nañu bu ñu ko jëlee war nañ ko mën a defar ba mu gën a ñoŋ gën a bëri gën a am solo parce que noor bi képp ku ci nekk te amoo vision bu mën a defar noor rek ça veut dire que yow say ambition bëriwul say gis-gis tamit bëriwul parce que noor déjà nit ñi rek seen biir ñoo ëpp. population nord moo ëpp ci département Rufisque muy benn ni mu toy tamit ci plan géographie moo ci ëpp beneen bi mooy tamit euh, ci li ngay euh, déjà am na ci déjà un hectare de mi yombul ci Tëngéej moo xam ne mu ngi nelaw ci digg dëkk bi donc euh, ak ay espace yoo xamante ne ni tey jii gaa yi bu ñu ko jëlee moom li ñuy njëkk a xalaat mooy nu ci amee seen benn weccet te bon nit ñi war ci mën a def lu baree bari loo xam ne day jëriñ ñëpp donc loolu dafa bari loo xam ne daal moo leen a liggéey xam nañ point yi nga xam ne bu ñu ko téyee dëkk bi dina mën a soqaliku loolu moo tax ñu leen ko jël pour mën ko. donc ñu ne ñoo bokk benn objectif muy lan dëkk bi baax donc boo ñëwee vers man dama jàpp ne yow xel mi may yor wala ni may xalaat ni nga donc lu ñëpp bokk ñor ko boole defar donc bu loolu amul rek naxante day am. bu ma jàppee ne yow nag maa war a jàppale yow nga jàppale nag maa war a jàppale sa veut dire am na naxante bu ci am pacte boobu dëgërul te donc man dama jàpp ne euh, kenn ku nekk sa rôle mooy nga def ci sa alal def ci sa mën-mën comme li ngeen di def nii kenn fayu leen dara ngeen jóge fi bàyyi sa nit te ñëw di def pour sensibiliser surtout nit ñi donc loolu pour man ku la donc pour man jàpp naa ne yëpp li ko waral mooy kon comprendre ngeen ñun fi ñu jëm li ci am solo mooy nit ñi ñoom ñoo war a dimbali seen bopp parce que parce que nit mënuma imaginer yow nga nekk ci benn affaire boo xam ne 40 ans li mu yor yow yaa tax mu nekk ko muy maire muy président de la république muy député muy lu mu mënti doon yow yaa tax mu nekk li mu nekk te kooku bu ko nekkee ba pare yow du la nawloo du la def nawle ça veut dire que yow kon yow yaa war a xool yow mi ko def loolu ba pare topp ci ginnaawam yow yaa war a xool yow lan nga donc ma jàpp ne kon population bi ñoom ñoo war a conscient xam ne ñoom ñooy fal ñoom ñooy folli léegi nag yow bu dee ni ki yow li nga ko dénk yow yaa ko dénk sëñ bi yow boo dénkee nit ki sa vélo moom mënul dawal nga jox ko sa waaye te yow da bëgg yow koo xamante ni dafa mën a dawal pour nga mën a dox ay xëyti nga jox ko muy daanu rek doo jël sa vélo nag téye ko jox koo xam ne moom mën naa pédale <laughs> waaw mais loolu mooy affaire bi léegi nag nit ñi nag ñoo war a am fulla vélo bi ñu jox koo xam ne mën naa pédale <laughs> waaw mu dem mu daw parce que tamit ñun comme que ñun dañoo sonn ci yëkkati vélo mais <laughs> dañuy jox vélo bi koo xam ne mën na pédale loolu mooy affaire bi donc bu wax di daal euh, en gros moom li am solo mooy ñu ñu jiital ñoo ñu sonal ñi ñu jiital nañu ñoo leen fi teg ñoo leen fii teg yi teg fi ñoo xamante ni ñoom ñun seeni profil doy nañu ñu jël maire bi billaahi bu ma gisoon dama koy ñaan sunu borom bu amee ku ma gën koo xamante ni moo gën pour yor tëngéej wala fi ma soxla muy fii yàlla bu ma ko yàlla jox parce que man dama am yeneen préoccupation yoo xam ne moom ëppal doole fuuf maire yi foofu benn dinaa ci gañ a xaalis dinaa ci gañ temps te kenn du ma xamal dara di wax rek ne toujours rek di interpeller jeunesse bi parce que la plupart boo duggee ci quartier ñi ngay gën a gis mooy jigéen ñi parfois ça me fait mal parce que kon comprendre ñu jeunesse bi te jii boo wootee il faut ma tooñ leen boo wootee Wally Seck wootee Wally Seck da ngay gis comme que Wally moo fi xew <laughs> da gis stade bi fees del xam nga mais Wally d'accord naa mën nga ko bëgg mais tamit dafa am li tax environnement bi tax ëllëg nga mën ànd ak Wally dox c'est très important mooy tey jii dafa am loo xam mu ëpp solo lool mooy du yow mais sa génération bi ñëw tegu ci condition yoo xam ne ëllëg bu ñu bëggee foofoo bu ñu waree liggéey liggéey parce que nit tamit dafa am

boo fàtteelee lee moo ëpp solo lii donte lii am na solo donc ba tax na jàpp nañ ne fula ak fayda gi am ci waal yi nañ ko am ci maire yi donc c'est très important le 8 janvier incha allah Yann production ak Gaston production ñu ngi jox rendez-vous gars ñëpp ci stade de Mbao Wally Ballago Seck ak waa Ramdan eh de ah su ma ñëwee Mbao ñëppay wàcc wàcc si incha allah donc préparez vous Yann production avec Gaston production Wally Balago Seck ñu leen di jox rendez vous le 8 janvier incha allah kër Sadou Ba et